matinal sen émission saveur matinal ci biir Kadiom TV ngeen ci ànd ak sen dom sen xarit DJ Balz le docteur Daycoeur tous les lundis et mercredis lundi bu jot dinañ ànd ak yéen sen rubrique astuce beauté waxtane lepp li nga xamanteni tar la ci biir Kadiom TV mercredi bu jot ñu ànd ak yéen sen rubrique woné sa temps yow mi nga xamanteni da nga am talent bëgg ko woné Continue tous les mercredis Fiti Kadem TV tous les lundis mercredis à partir de 9h30 ci Kadem TV avec le docteur Dekker Vous ko